la revue de presse de Souleymane Ndiaye yéenekaay yi ak Souleymane Ndiaye dal leen ak jàmm tey dañ koy door ak yéenekaay bi nga xam ne le peuple yéenekaay bi le peuple moom dafa dellusiwaat ci ki nga xam ne moom moo di Thierno Cissé mi nga xam ne euh, dafa jëloon na euh, li nga xam ne moom moo di ay euh, treize députés yoo xamante ne amu ko daal di ko présenter conseil constitutionnel ne pour parrainage des élus lay am ci lañ ko jàpp nag moom nag daal di nañ ko condamné six mois de prison. yéenekaay bi di l'indépendance moom dafa dellusiwaat ci euh, euh, euh, candidat yi nga xam ne dañ leen recalé ñoom nag ñu ngi waajal caravane boo xam ne ñu ngi ko tuddee caravane dogali Benno Bokk Yaakaar lii di la recalé yi préparé pour daal di fi jëlee nguur gi fi ne. yéenekaay bi nga xam ne moom moo di révélation moom dafa dellusiwaat ci Karim Wade mi nga xamante ne nii mu ngi waaj ñëw biir Sénégal fas yéene déglu sept sages yi lan moo war a tukkee ci li nga xam ne moo di le vingt. nga xam ne ñëpp sénégalais yëpp a ngi koy xaarandi waaye Bougane Gueye Dany yi tamit dellusiwaat na wax ne moom daal fas yéenewul toog ci élection yi lépp lu mu mën dana ko def pour régime bi fi nekk daal di fi jóge ah, euh, ba tey ci biir yéenekaay bi di révélation aussi euh, ñu ngi dellusiwaat ci ki nga xam ne candidat bi di Thierno Cissé mi nga xam ne nii euh, tëj nañ ko juróom-benn weeru kaso yéene bi nga xam ne moo di réew mi moom ba tey dafa dellusiwaat ki nga xam ki euh, ki nga xamante ne nii moom moo di candidat wu patriote yi di Bassirou Diomaye Faye yéene bi nag mu ngi wax ne Bassirou Diomaye Faye mu ngi en danger parce que fi mu toll nii fii ak le jotagul kenn mënagul xam ndax dina bokk ci candidat yi nga xam ne nii euh, conseil constitutionnel dinañ leen valider am déet ginnaaw bi mu jàllee état bu parrainage. yéenekaay bi nga xam ne moo di 24 heures moom dafa dellusiwaat ci euh, euh, recalés yi waxaat ne bugaan ak ñi mu àndal ñoom daal recalés yëpp fa yéene nañ def caravane doggali Benno Bokk Yaakaar euh, pour jëlee leen fi. yéenekaay bi nga xam ne moo di yor-yor moom dafa dellusiwaat ci ñetti candidats yi mu ne le troïka de candidats spoliés promet de doggali au candidat de président Macky Sall lii la yenekaay bi nga xamante ne moo di yor-yor wax ko mu ne ñetti ñi nga xamante ne nii daal dañoo spolier seen. candidature ñoom pare pare nañ ñu ngi waajal pour nag doggali euh, euh, euh, candidat bi nga xamante ni mooy candidat wu Macky Sall. yéene kaay bi nga xam ne moo di l'info moom dafa dellusiwaat ci ba tey ci candidat yooyu mu ne un bloc en guerre contre la continuité le candidat la continuité daal gars yi moom la ñu bëgg a fexe ba déedéet ko fi jëlee muy ki nga xam ne moo di Amadou Ba di candidat wu Benno Bokk Yaakaar recalé yi nag pare nañ pour jàmmarloo ko moom. kaay bi nga xam ne moo di l'Express moom dafa dellusiwaat ci journaliste bi di Babacar Fall ginnaaw bi mu yëkkatee ay kàddu def chronique pour ñaawlu wax yi nga xamante ne Macky Sall wax na ko nag gars di ko menacer de moor ñii di ko saaga fu ne ñii de nag ay naataangoom di taskatu xibaar ñoom ne ñoom ñëpp daal ànd nañoo ak Babacar Fall ci kàddu yooyu wax parce que kàddu yooyu jàpp nañ ne deful ko ci lenn lu dul def liggéeyam la doon def. yéenekaay bi di l'informateur moom dafa dellusiwaat ci évêques africains yi mu ne évêques africain yi daal wax nañ déet pape bi mu ne les évêques africain disent non au pape waaye lu ñeel wàllu politique tamit euh, recalé yi ñi nga xam ne nii dañ leen recalé ci conseil constitutionnel fas yéene nañu jàmmarloog euh, candidat wu euh, président Macky Sall bii di Amadou Ba. yéenekaay bi di Dakar Presse moom dafa dellusiwaat ci ki nga xam ne moom mooy docteur Abdourahmane Diouf ginnaaw bi informaticien bi daal di démon démontré. erreur yi nga xamante ne gis na ko ci euh, fichier électoral bi waaye tamit ni tam ñi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla euh, wax nañ ci lu jëm ci wàllu doublon yi euh, Thierno Alassane Sall nag daal dina wax lii ko naqari yépp ci biir conseil constitutionnel ba pare wane ne moom du bàyyi waaye tamit ba tey li ñeel wàllu politique it ñu ngi del soit ci ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko magazine bi nga xam ne li ñuy wax le magazine news africain sous le charme de Sonko loolu la wax mu ne ne Ousmane Sonko bokk na ci euh, euh, personnalité yi nga xam ne yu gën a influent la ci 2023 ci buñ ko xayma mu tolloog maanaam euh, téeméeru africain yi nga xamante ne nii bokk nañ ci gën a influent ci 2023 bi nee na Ousmane Sonko ci la bokk magasin bi moom moo ko wax ci yéenekaay bi yéenekaay bi nga xam ne moo di républicain moom dafa dellusiwaat ci choix bi nga xam ne nii Ousmane Sonko def na ko mu ne le choix cornélien des ex patriotes daa di wane nataalu ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye ak Habib Sy lii yéenekaay bi nga xamante ni moo di le républicain moo ko wax. yéenekaay bi nga xam ne moo di le quotidien moom ba tey Bougane Gueye mu ngi naan du bàyyi du bàyyi de waaw moom mu ngi ci combat bi élection yi da ciy ànd yi dem ba jeex lu gars yi waxi mu daal di ko suul. yéene kaay bi di euh, point actu moom dafa dellusiwaat ci ñett ñi nga xam ne ñu ngi àndoon ak président Macky Sall te daal di génn ne ay candidat lañ mu wax ne Benno originel en tête mais rien n'est encore joué lii la yéene kaay bi di Dakar euh, point actu daal di wax wane nag ñetti nataal yi nga xam ne nii moom moo di Mohamed Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao nee na ñii daal mooy ñu bokkoon ci président Macky Sall di génne daal di ne candidat la ñu xam xool ba xam fu wanente du mujjee ki bëtam ci deuxième tour élection yi. yéene kaay bi di laas moom laas yéene kaay moom dafa del soit ci ba tey ñaari candidat yi kii di Bougane Gueye Dany ak euh, docteur Abdourahmane Diouf mu ne lii ñu gis daal dafa mel ne coup électronique la lii la yéene kaay bi di laas daal di wax. yéene kaay bi di l'observateur moom dafa del soit ci ki nga xamante ne moo di Babacar Fall nee na Babacar Fall na ko ni ñi may jàmm te bàyyi mënaas de mort yi koy def ak waaw euh, attaques yi ñu koy def loolu daal du ko tere def liggéeyam. waaye tamit dellusiwaat ci euh, ki nga xam ne candidat bi nga xam ne mooy candidat wu euh, anti système lañ ko mën a ooye te nekkoon fi ancien ministre di Habib Sy euh, yéen kaay bi nag mu ngi wax ne Habib Habib Sy étude de valeur d'un jockey lii la yéen kaay bi di l'observateur wax jëme ko ci ki nga xam ne moo di Habib Sy yéene kaay bi di Vox Populi moom dafa dellusiwaat ci kii di Mamadou Diop Decroix Mamadou Diop Decroix moom dafa wax ne Euh, liste bi moom dafa am ay failles ci système dafa am ay failles ci système informatique bi euh, bas euh, kii nag nga xamante ne moom moo di docteur Abdourahmane Diouf démb nag kàddu yi mu yëkkati woon Vox Populi mu ngi ko boole ci xëtu yenekaayam bi nga xamante ne nii mu ngi ci wax ne kii di Bassirou Diomaye Faye mu ngi nekk en danger maanaam fii ak le vingt moom euh, gars yi euh, saa su ne mën nañu indi loo xam ne nii euh, wala ci biir le vingt bi sax kan liste yi nar a génn moom tiital na ci kii nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye dëgg kii di docteur Abdourahmane Diouf moo ko wax Bougane Gueye tamit dellusiwaat na ci caravane bi nga xamante ne nii mu ngi koy waajal di caravane doggali Benno Bokk Yaakaar yéeni kaay bi nga xam ne moom moo di Sud Quotidien moom dafa dellusiwaat ci recalés yi mu ne les recalés jouent la prolongation recalé yi daal ñoom daal xam naa ne daal euh, fas yéene wu ñu bàyyi conseil constitutionnel euh, noonu du ñu bàyyi conseil constitutionnel noonu de fas yéene nañoo def ay plainte euh, ginnaaw plainte yi tamit li ci des mooy combat politique bi ñu fas yéene jàmmarloo ak nguur gi nga xam ne ñoo fi nekk te président Macky Sall jiite ko mu fas yéene samp Amadou Ba muy candidat. mu nekkoon seen revue de presse ngeen àndoon ci ak Souleymane Ndiaye ñu ngi leen di jaajëfal ba suba ak jàmm incha allah. la revue de yéenekaay yi ak Souleymane Ndiaye